mais man mais Mbaye dama bëggoon xam jàngu la ñaari. Ah? yow yow lañ jëloon comme jàngkat bi nga war a jàng. man lañ jëloon seeka yow la ñu engagé. moo dafa am ñoo xam ne. Hmm. am na ci waykat yi am na ñoo xam ne mën nañoo riim nii comme jekki-jekki rek riim. Hmm. waaye bon fanaanee programme musibaam. <laughs> man nag dama doon riimantu am waa laañar am ku ko dégg ne ma saa lii nga riim wax dëgg war na war naa. war nañu mën a engagé. war naa mën a fanaan ci baas. Ah. maamu fiit lool ni leen waaw. ñu <laughs> avance ma cent mille. waaw ma dem. bi ma duggee tàmbali hmm. ma ne onze billahi mina saytaane rajim <laughs> noonu lii sax micro lay génne lii lii attends lii bi da lay génne parce que na neex boo xam mbay ki ne <laughs> koy bi mu neex ah. ah. nga ni micro ba yaa ngi dégg sëñ Fall ko maa ngi kolo nag kolo deux mètres cinquante daanaka. ay awkat wuti awkat gaa yi dar ma <laughs> ay ñoom am satu njaay ak gaa yu yëpp. man auzu billaahi ah, neex na ba dee kat. bismillaahi rahmaani rahiim. Hmm. wa sallallahu taala على سيدنا ومولانا محمد ايوه محمد ايه محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما waaye nag lay problème ba ba ca topp xasida googu rek laa mokkal <laughs> te trois heures du matin laa dugg te nga war a jeexal six heures du matin ma war a jeexal six heures du matin ma rajas ko ba mu jeex ma jàng ko njàngum aw gaa yi aw ma ñëwaat rajas ko jàngaat mujj waa bas naan ci yëpp ci yëpp ma ne ah di ci pato ma ma ne ma ne ah, xëy na laañaar noonu la ni yëgam njàng garaw ma continuer ba bët set wecc six ah. ma ñaan di jàmm maa ngi sant waa dayre bi di sant benn femme gis ko mu yaru carnet di lëfër lëfër di ñëw ah tàmbali naan ah xari baay gàllaay ya fukk la xari baay moor ya fukk la ba yow soxna Maguette Ndiaye woof ma ne waaw lii de alhamdulilah xaari na loolu may jox la. waaw ñun ma mbay nag lii lépp bi nga tàmbalee danoo dagg. maanaam jur gi. jur gi ci dëkk gi ni yeewoon yëpp a dagg. ñëpp a dagg dem fa. danoo danoo tiit nee na danoo tiit de loolu da doon ma wax ñu ni ma yëpp a tiit ba dagg am xar bi ci dëkk bi nga xam ne lan ma avance zone ak la ma dajale woon ca taabal jaag. waaw. ba léegi sama xabtaan nga laaj